bisimile Sandaga day danoon jax-jaxi kon di lakk tribune yéene kay ne genn lakk goo xam ne day ah doñowaar daa mel ni loxoo nga ca de mystérieux ma la ko wax moo daal di kon caxa-caxatee nag marché Sandaga jee ma ne démb ca ngoon la ca guddi ga waaw lakk goo xam ne nag maanaam kon ba mu jugee sapeur pompier yi daal ah dañoo tardé ñàkk tamit ay temps yu bare bare bare bare ma ne même sapeur pompier yoo yee mënuñ ca woon dara ñi nga xam ne tamit ñoo moom kon cantine ya mënuñ woon dara impuissant laase lakk googee waaw jafe na kon nga gis lu mi moo mujj soppee ko doon ab doomu taal laa ilaha illallah ay milliards yi milliards daal dinay nax saay ca saxaar sa le populaire ne ginnaaw na kon bañ leen fa jëlee daal ca bâtiment central ba ma ne ga daal safara sax daal dinay faxas sàndaga daal di koy nettoyé sur quotidien ne daanaka day benn semaine rek ba ñu tëjee nag kon marché sàndaga googee waaw bomb ba day mujj naa tàkk le populaire ne bâtiment boobee nga xam ne toll na ci juróom ñetti fukki at laa ilaha illallah ma ne la ab lakk goo xam ne jafe na nga gis soosé daanaka ñetti waxtu yu tegoon fanweeri minute trois heures trente minutes la ñu xeex ak moom ci njàppandalu sapeur pompier yu yee nga xam ni kon gars dañ leen doon tàcc kon di leen jaajëfal tribune yéene kay ne est-ce que Sandaga saboté wuñu ko laas ne commerçant yi ah nguur gi la ñu tuumaal la ilaha illallah nguur gi ci boppam la ñu tuumaal ne luy njiig nguur gaay njaag nguur ga ca boppam kon moo daal bâtiment ba i ñoo ko provoqué Thierno Diouf ne man ngi fii ci marché waaw waaw waaye bii mooy kilifay seen bopp laa lay wax ni ñoo ñu ngir ñu fi pour ñu dem dañoo profité kon ci tabaski bi ñu kon ci bërëb bii dégg daanaka une semaine lay def kenn dugg fi kenn génnu fi waaw kon kay safara soo see ñoom nguur gi kon ñoo ko fi dugal ñoo fi taal birima ci tribune yéene kaay ne boo leen gisee nag ñu dem tey jile ba yegg si fii ah, du kenn ku dul nguur gi rek kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ak ña fi nekkoon ñoo amuloon fi osé osé jàkkaarloog nu ni mel ak tam ngir jëlee fi ab ngamadi goo xam ne kon dafee sax daju fi indiscipline caractérise sécurité ñàkkub kaaraange la Abi Ndour tey amatul kaaraange un ah. ubbil tribune yéene kaay Abi Ndour laa lay ni la waykat daa soke fi mu ne nii bopp ba yëngu ndax ñàkkub kaaraange ci boppam sax lañ doon gis kon ci karkanamuk Abi Ndour moom rek Youssou Ndour bi ci tabaski ko cambriolé sàcc kon biti ñu ngi ko wax ay nit ñoo xam ne kenn xamul fan la ñu jóge te Abi Ndour Sacré Cœur gée moom ay doomam a fa na ca kaw duma fi nekk laa lay ni banque samay loxo ba ñu ray ma damay ba ñëpp xam ne amatuma kaaraange yéene kaa gi ne am na benn waay juñ naan Saliou Fall waaw am na jabar ma nga nekk Espagne njabootam ma ngi fii ci Sénégal mooy envoyé Aby Ndour ay photo pornographique yoo xam ne maara daytaali ay photo yoo xam ne góor ak jigéen a ngi koy sëy di def ay jëf yoo xam ne naxari naa nettali Aby Ndour ne waa jàng may toroxal manqué ma respect di ma humilier tuutil ma yéene kaa gi ne mititu Aby Ndour googee yemul ci Saliou Fall kese de parce que benn waay boo xam ne mi ngi tudd Amadou Baba Kane mi ngi harcelé Aby Ndour sexuellement franc nag laax la ilaha illallah ah Amadou Baba Kane mii Parcelles Assainies la dëkk ma ngay liggéey ICS bu mbaaw day harcelé Abi Ndour Abi nag nee na lii mënatul continuer nee na Amadou le da koy yónnee ay message yoo xam kon maara day taali di ko woo téléphone ay heures yoo xam ne na dayoo waa day ñëw ba taxaw buntu kër di def ay jëf yoo xam ay jëfu mala i Abi Ndour nee ay doomam sax profitoo nañ ba filmer ko tey réew mi le réew mi day ginnaaw suba Aminata Touré dana wax a sénégalais yi da xaar ca moom waaw moom la journal ba dikk ma dëkk ci Karim Karim a nga rëbës ba léegi ni la dee Cheikh Bou Mohamed Kounta xalifa général ak ci laas ne Karim Wade daal dana génn ci kaso bi te dara jàm dana yokk i maa la ko wax de mouvement libéré Karim ña woon barki démboo Njaay ca Tiwaawoon ak Ndiassane yéene kaay gi ne bu dee Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine xam la ne ni Karim Wade daal dama ne dana génn te dara jàm kon dana jur dara lu dul ñuy yërëm nit ka yërëm daw ca nit ka victimisation waaw looloo tax daal ñun daal ñu ngi sàkk ñu génnee Karim Wade ci kaso bi yéene kaa gi ne xamoo leen ne Abdoulaye day bu ñu sukkandikoo ci njaboot gi waaw ma ngay tabax ab palais boo xam ne boo xayma benn milliard la ngir xaalifu Njaasaan ya terminé yéene kaay ne ginnaaw acte trois bu décentralisation waaw kañ la acte un bu demande sociale ba dunu ak askan wi président ci boppam kon woote na ngir ba ñi ànd ak moom ñëpp nag bokk nañ ca biir jëloon kon Macky Sall ñi ngi xaar kon seen seen waajoo jee mu ubbi ay waxaan ngir dund ak askan wi maanaam lu ko yóbbu nag ci yoonu yokkuteem googee nga xam ne fu ne la ñu ko tiitaroo yow ci am réew moo xam ne lépp farata la réew mi lépp priorité la lépp farata la suñu kilifa yi moom ba léegi ñu ngi am daal ay jafe-jafe ngir am ab yoon wu ñuy jële sénégalais yi na ci seen torox tàngee coono li nga xam ne moom la ñuy dund la ilaha illallah ah oh, la ilaha a son waay yow